innama al amalu binniyaati wa niyati tabarruku bi saadaati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fu waay mën a ne yéen mbokk taalibe yi ak fu waay mën a ne ñu ngi leen di nuyu nuyóob lislaam te fas yéene ñëw tey ànd ak seen sit Assalaamy TV mu lëkkaloog seen chaîne YouTube xam sa diine TV ñu fas yéene def jàngat yu am solo ci majmuha bi nga xam ne maam Serigne Sylla moo ko defoon mu jëm ci njàngaleem Serigne Touba ak i ndénkaaneem liggéey bi nag lii ñu ci yóbbu te xiir ñu ci mooy liggéeyal suñu boroom ak liggéeyal Serigne tubaa sàkku ngërëmam ci tasaare am njàngaleem. ngir nit ñëpp mën a xam dëgg dëgg am njàngaleem te mën koo topp ñu ngi ñaan képp ku ci jot nga tasaare ko loo man te ñaanal ñu ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa mi tax ñu koy def kon incha allah loolu lañu war a ànd ak yéen ci programme yi ñu leen wax ajjuma bu jot ak dimanche bu jot ci seen chaîne YouTube Assalaamy TV ak xam sa diine TV ngeen di ci ànd ak seen mbokk Baye daa Mbay doomi Sëriñ Xaadim Mbay Touba Longhor jërë ngeen jëf innama al amalu binniyaati wa niyati tabarruku bi saadaat